Euh, tax bi jóg mooy euh, dañu jàpp ne am na lu ñu boole muy benn parti politique bu tudd Sénégal ci biir ngeen gis ni kii colonel la kii commissaire la kii ci ginnaaw professeur d'université la kii adjudant chef euh, sergent chef la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kenn ku nekk ci benn corps nga nekk mais muy nit ñoo nga xam ni pour ñi ci ëpp ci ñi ci ëpp servir nañ seen réew fu nekk mais bi ñu demee ba mel ni dañu dañ leen dem leen toogi bokkatu leen te réew mi toll foo nga xam ni dafa soxla ñi xam di wax ñi xamul noppi ci ñi mën di def ñi mënul toog mais li ñu constaté Sénégal tey mooy ñi xam nangootuñu wax parce que dañ naan su ma waxee ñu xas ba su ma waxee ñu saaga ma mais boo bañee wax ba réew mi tàkk looloo gën a garaaw mais ñi war a wax xam li ñuy wax bu ñu nanguwul a wax naturellement ñu xamul li ñuy wax ñëw taxaw di wax est-ce que jàkka yaakaar ngeen ni jaadu na ñuy wax vaccin bu baax ak bu baaxul. ñu indi benn footballeur wala benn musicien wala benn politicien ni ko loo ci xam alors que médecin yaa ngi fi donc juste pour donner un exemple donc ñu dajale ñu tey xëy na ñun suñu seul mérite mooy yàlla may nañu ñu mën a wax ak ñi wax ak ñële te koo ci waxal aussi muy ñi teew ak ñi fi teewul ñi yónnee ak ñi yóbbante ñoo nga xam ne nekkuñu ci cadre politique defuñu politique mais dañu am seen xalaat bu ñu war a joxe ci réew mi ñu jàpp ne bu ñu wax éducation yar nit ki da koy xamal li xew. pour nga xamal ko li xew na ñii ak ñu mel ni ñoom ñoo ci gën a jaadu donc ñu dajale leen tey ñu waxtaane ay thèmes yoo nga xam ni ci jàmm ci ci sécurité réew mi la jëm parce que gis nga sénégalais billaahi ñoo fi gën a ragal gis ngeen depuis événement yi amoon koo dégg rajo mooy sax danaan yàlla na jàmm am <laughs> mais jàmm nag doo ko ñaan rek da nga koy liggéey e euh, le le le professeur l'a dit dans son exposé Sanokh il l'a di jàmm dañ koy liggéey te jàmm mi ngi tàmbali ci yéene nit ki jàmm mais mënoo yéenewu nit ki jàmm ba pare bëgg am jàmm donc plateforme bi loolu moo ko tax a jóg tey waxtaan nañ ci li ëllëg danañ am yeneen question yoo xam danañ ci waxtaan buñ ci yàlla dimbalee. première édition bi fii la. ah déggu waaw mois de mars heureusement yàlla moom ku baax la bi fitna jooju amee mois de mars parce que bi mu amee tax na ñu xam lan moo dox ak loo doxul tax na ñu xool suñu système. muy sécurité muy leneen ak leneen. lan moo ci aw yoon lan moo ci awul yoon. tax ñu tax nañu xam ni Sénégal du ay xarit rek la am ndax ñi soobu woon ci mbir mi te seen yoon nekku ci li olof ñu wax naan ñiy gàmmu ak li ñuy raas dem bokkuñu. daf ci bëri ndax ku ngeen gis mu yor balu mu yor fetal ñëw di dóor ci buntu magasin ñii di toj ay banque ñii di wax ni quatre heures du matin on va bombarder le palais buñ fa jógee dem assemblée nationale. bu ñu fa jugee dem palais de justice ñooñu ku nekk xam na ne du ñu ay manifestant politique te ñi ñu fi attaqué xas leen saaga leen muy ministre de l'intérieur muy ma Madiambal Diagne muy le capitaine Dièye loolu rek la ñu wax te li ñu wax dañ joxe firnde man yore naa ko ñeneen yore ay vidéo yoo nga xam ne ñooñu dañ leen gis ak seen tenue ñu taxaw nga xam ne ñii duñu ay militant politique donc événement yooyu tax na ba ñun sénégalais ñu ne ah attention nañ leen xoolaat suñu toogaay am na nga xam ne yoroon nañ nguur perte nañ ko tey sénégalais seen parce que jàpp nañu sénégalais leen ko xañ am na ñoo nga xam ne bëggoon nañu jot ci pétrole Sénégal jotuñu ci jàpp nañu gouvernement bay leen ko xañ am na ñoo nga xam ne bëggoon nañu jot ci gaz bi jotuñu ci jàpp nañu gouvernement bay leen ko xañ ñu ñëpp bu ñu dajaloo boole nag loo nga xam daf ko fekk ci sénégalais yi muy coono bu ko kenn nëbb bari na sénégalais bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki bari na ñoo nga xam ne dañu xëy di këñ këñ taxawaalu ci mbedd ba ngoon jot ñu nekk ay difficulté mu taseeg ñu nekk ci ci mbas mi ñu tëj Sénégal yi ñu génn ñu doon wër lu muy néew ka bari di for lu ñu bis que mënatuñu dem ngeen gis ni boo xoolee kaaw France par exemple Europe yëpp de manière générale période boobu la gën a bari ay ñuy rey seen jabar violence conjugale bi dafa bëri woon doomu aadama moo mel noonu donc yooyu yëpp bu dajaloo affaire bu mel nii ni tëf booleeg nag ndekete yoo ku muus la ñuy nax ñu dugal ñu ci combat boobu du suñu combat bi ñu demee ba ci biir ku nekk ah ndakete ndakete waruma woon a jóg ndakete waruma woon a xeex ndakete waruma woon a wax lii parce que la xewoon du woon sama yëf yëfu ñaari Sénégal la woon mais heureusement commissaire da koy wax toujours may ree mais gis li muy wax dëgg la nee na ñi indi woon événement boobu bi ngay wax nii dañ leen war a décorer parce que bu amul woon ci jamono bii dem am dans deux ans par exemple ñu nekk veillu élection wala ñu nekk ci période élection kon réew mi dina jaxasoo jaxasoo kenn mënu ko donc vraiment dañ ciy sant yàlla. waaw xam nga xam nga ab ministre xam nga am ministre mënul def découpage xam nga loolu aussi je pense que am na ñoo nga xam ni ou ñàkk xam la ou bien bëgg a réeral askan wi la ministre mënul def découpage découpage responsabilité président de la république wax naa ko léegi ma fàttali ko. découpage bii ñuy wax xam nga dañuy wax Sangalkam mais du Sangalkam rek xëy na Sangalkam daf ci gën a fës mais 2002 bi ñu découpé Sangalkam Sangalkam dafa amoon téeméeri kilomètres ak juróom-ñeent fukk ak juróom kilomètres carré moo doon Sangalkam fanweeri dëkk ak ñett nekk fa ñu découpé ko Sangalkam dese lu matul ñaari kilomètres carré dese ñetti dëkk yuñ ci rattaché liggéey lépp ñu yóbbu ko mi loolu ak feneen population bi jamono yooyu génn di ci xeex. ba suñu doom suñu rakk suñu jarbaat Malick ba génn ci bakkan euh, ñàkk ci bakkanam génn àdduna yàlla mi dogal def na ni mois de mai la woon lii ñu taxawee dix ans après ci mois de mai la ñuy waxaat mbirum découpage bi ña d'accord woon ca découpage booba ñoo mel ni tey ñoo bañ ñu découper waat lii kon nga gis ni nit ñi ñaare dañuy changer position suivant seen intérêt bopp tey ni nga ko waxee le ministre Omar Gueye la tudd mooy maire. l'autre maire c'est Ndiagne Diop mais dans dix ans yal na li yàlla may gudd fan ak wér yaram may leen ñu yàgg ci kanamu askan wi mais yàgg-yàgg dañ fiy jógee buñ fa jógee du tere sangal Sangalkam continuer nekk fa du tere loolu continuer du tere feneen ak feneen continuer kon nañ rafetal soow mi duggee ko jabi loolu mooy nañu xam ni nit ki ak koo mënti doon ancien rek ngay mujje ancien marabu rek moo amul ñu jëles ñëpp ancien journaliste la ak ancien ministre rek ancien commissaire ak ancien ancien la ñuy mujjee kon nañ fexe fa bàyyi fi loo nga xam ni ëllëg ki si biir seen doom seen jarbaat yi ñëw danañ fi fekk luñ mën a continuer di gérer correctement donc mbirum découpage bi loolu lañ jox mais du lu mën lu mënta ñàkk la. tey nag njëlbeen rek la way noo ko nar a doxalee. bii bu njëkk. waaw nga bëgg lii nii waaw xam nga tàmbale dañ ko tey. ëllëg si biir parce que danañ dellu si buñ ci yàlla buñ ko yàlla mayee waxtaanee lu mel lu jëm ci affaire foncier dafa am solo lu jëm ci affaire les liberté dafa am solo mais bëgg nañu déplacer wu un peu partout même dans le pays dans les universités dans les école partout pour dajee ak population bi dajee ak jeunesse bi waxtaanee ñoom sans parti politique parce que ñi daje fii kenn xamul sa morom ban ban parti la bokk toppatoo wuñ ko un seul parti moo ñu dajale parti s'appelle le Sénégal moo tax ñi nga xam ni ay officiers la ñu. di ñu yónnee message di ñu xelal di ñu wan ne li ñu def ñor na leen ñu ngi leen di wax ne du ñu leen décevoir parce que yoon wi ñu jaar incha allahu rabbi duñ ko wàcc yoonu am benn parti politique bu tudd Sénégal bu wote jotee na ku nekk demal foofu fu la neex ñu xam kenn fooy wote mais en tout cas ci biir plateforme li ñu ciy doxal mooy loo nga xam c'est l'intérêt exclusif du Sénégal jërëjëf.